ñu war a jàpp ne mais jàmm gën ndax mooy permettre ñu am condition yu propice pour liggéey amal njariñ Thiès amal njariñ Sénégal waaye comme dafa fekk ñoom ba ñuy def loolu daa dajee ñu nekk presque à un an des élections territoriales di nga mën comprendre li ma la wax ne ñun ba ñuy ànd ak Macky Sall intérêt Thiès a ñu ba ñoom ba ñuy ànd ak Macky Sall seen intérêt moo tax ndax jàngat bu ñu jàngat les différents résultats des élections yi fi jaar 2017 législative Benno moo fi ci département Thiès te législative département moo compté ak niveau national. diggante bi présidentielle moo fi am te wax naa leen présidentielle bi ni mu demee bennoo dem ba am 40 pour cent ak lu teg te élection locale raw gàddul kon yow bu fekkee ña la jàppale woon ba nga raw leer na ne du ñu àndaat ak yow kon boo demee local noonu nga ñàkke woon 2017 département bi noonu ngay ñàkke yépp te boo ñàkkee yooyu yépp la nga waxoon sénégalais yi ne deux mille vingt deux may am 63 ans ci lay bàyyi politique kon day day am yoon ndax loolu la waxoon na mu mel ne yàlla dafa dëppale yëf yi at mii élection yi ñëw mu war ci am ay défaite yu bëri maanaam moo dajee la mu waxoon ne ci lay bàyyi politique te bu ci yàlla àndee na te lay bàyyi politique ndax lan yow su fekkee jàngat boobu am na nga ne naa jóg dem bootu ju ci ñële ñu jo ñu ñëw dalal la jox la ay cër yu mag jël Mimi Touré teggi ko fa mu nekk ñu jox la ko yow jël sunu jigéen Ndeye Tické dont nous sommes teggi ko fa mu nekkoon jox ko sa sa sa kenn ka lay ka lay ka lay téyel bagage di la defali mbir jël keneen teggi keneen jox ko ñu war a jóg ñu ngi dem élection ñuy war a waxtaan pour ne entité yu bari ñoo daje ndax y a le Benno parti qui prétend venir renforcer la majorité présidentielle mais i n'est pas membre de Benno le Rewmi n'est pas membre de Benno le Rewmi infiltre le Benno assiste à des réunions au niveau national pour préparer stratégie pour def ëllëg ci dëkk bi loolu mooy dëkk xëy na dinay dajeeg président de la république di wax ak moom président bu wootee réunion mais Thiès fii y' a pas de boo xam ne réew mi teew na ci y' a une première tentative dans un hôtel réunion qui a échoué y' jamais eu de donc réew mi n'est pas membre de Benno voilà deuxième tentative réunion loolu mooy dëgg kon dafa jaadu su nit dee waxtaan ci biir dëkk bi ñu ni on va à la recherche pour Benno ñi bokk bennoo ñooy daje di waxtaan te ñi bokk bennoo ñi ci dul APR ñépp wax nañ li ñu bëgg ne nañ ma nga ñaan te ci biir APR te ci biir APR bëri na ci ñu ma ci waxal te man la ñaan ñoom itam ñoom itam ma ànd ak ñoom yaa ngi dégg kon bu fekkee ne dafa demee noonu ñu am département boo xam ne bennoo moom foofu boobu moom bennoo moom ndax nag sur dama la bëgg a wax ne sur les quinze collectivités onze yi bennoo la kooku discuté wuñ ko ñoom discuté ko ñun discuté mais te moom boobu la jiite moom département la jiite donc en renonçant même ci département bi à la suite d'une analyse lucide et réaliste mooy li nga xam ne mooy première conséquence bi mooy la libération de Thiès est déjà acquise au niveau départemental waaw Thiès moom est déjà libéré à au niveau départemental kon ñu war a discuter entre ville ak ñetti commune ci biir loolu ñu war waxtaan ñu ku bokk bennoo moo nekk maire bi te ci ay jàngat ay gëstu ay sondage njort nañ ne au moins une commune bennoo moo koy jël ñu ni kon nañ waxtaan pour seet nan la ku bokk bennoo jëlee ville bi ku bokk bennoo jëlee benn commune léegi ñoom parti boobu day ñëw majorité présidentielle ñu jël ñaari commune mu doon base de discussion ñoom ñu jóg ne non non ñoom ñooy jël lépp maanaam ville ñu ni maire réew mi la war a doon commune est maire réew mi la war a doon commune nord maire réew mi la war a doon commune ouest maire réew la war a doon ba pare damay benn ak kan mais kan ngay bennoon non non ñoom bennoo wuñu dañuy bennoo xam nga yére booy sol nga benn ko voilà ñoom bennoo dañuy bennoo kon su fekkee jóg nañu def loolu ne loolu la def ba pare téye ci ni ma xamee président de la ni ma ko xamee su jógee bàyyee leen loolu. dafa fekk responsabilité yi mu sentir ak li mu xam ne kilifa yu bëri béggoon nañ ci ànd bi du jël responsabilité tas ko ndax élection te xam na ne élection aussi askan wee koy attee te xam na aussi sans ma wax ko ko kenn wax ko ko xam na aussi ne ku dul yàlla mënuma tee doon candidat candidat boobu violé wul benn principe bu Benno parce que je suis avec le Benno et le Benno avec moi loolu mooy dëgg kon ñoom nañ jël seen ñu jël sunu bu ñu jëlee seen Benno même bu ñu tuddee ko Benno même ñu abal leen couleur bi ak logo ñoom ñoo ko ñoom ñu jël fas wi war ko nañ ko jël parce que étiquette yi amul ndax gis ngeen bi ma créé wàllu Sénégal mu am ñu soxla wàllu Sénégal man ne jël leen que dañu toll ci moment boo xam ne yàlla li ñu defaloon ci wàllu xalaat ci politique gu Sénégal tous les concepts yi ñu mettre en moo dox ci Sénégal. ba ñu nee jeunesse pour l' alternance alternance la ñu jaar ba ñu nee bennoo ndax ñun ñu ñoo ko créé nag bennoo si biir Sénégal la boobu tey ku nekk nga xëccoo pour nekk benn ñu taxawaloon wàllu Sénégal noonu bañ daan wax fal askan wi tey ku nekk ngi wax askan wi ñu bàyyi leen loolu waaye ànd ak képp koo xam ne nawle nga ngay parti politique. wala ngay mouvement boo nekkoon ci biir groupe bi plus maintenant les forces sociales yi nekk ci dëkk bi muy commerçant yi muy mareyeur yi muy ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi ay pàcc pàcc yoo xam ne ñun wóorukat duñu nangu mu war ñu wóorukat duñu nangu mu war ñu yow yaa fi ne ñun mareyeur yi ni ñu sonne consommateur yi sonn yaa ñu si dimbali yaa fi ne nga xam ne nga xam ne man maa demandé ñi ñuy àndal ne bu ñu xëccoo ci wàllu tur bu ñu xëccoo ci wàllu tur ndax nag ñoom bu fekkee dañ ne ñoom ñoom moom Thiès te parewuñu dem ak seen tur day confirmer li ma leen doon wax ne infiltration moo am ñun ñi am ma leen xamal ni démb fay nañ ma di leen xamal ni tey dem nañu préfecture notifié turu coalition muy waatees kon ñoom nañ jël bennoo ñu jël waa ñu xool ndax dëkk bi benn nit moo ko moom wala waa Thiès moom bu ñu jëmee ci élection nit ñi da nga leen di respecter même boo amee des sondages les plus fiables nit ñi dañ leen di respecter parce que sinon élection amul sens yéen ñëpp xam ngeen ni am na sama benn rakk bu ñuy wax Sonko 2017 dañu dem législative ñu fal ko au plus fort nga xam ne dafa dajale pour man ñu mot maanaam daanaka mot li moo tax mu nekk député pourtant bi ñu tegee un naa ak tuuti am na 15 pour cent pourquoi parce que opinion mooy décider parce que électeurs yi ñooy décider kon nit bu bëggee toog ne dëkk bi man maa ko moom. ba lépp luñ fi joxe man kese maa koy jël moment boobu xaw ma kuy nangu loolu man lànk naa tey wut ku ma lànkale léegi nag xoolal je lànk tu lànk il lànk ñu lànkoo bu lànkee ñuy la féete ñun ñoo fi nekk di doxal dëkk pendant plus ne jaadu na ñu ñëw kanam ci kanamu Thiès ne leen lan ngeen xalaat ci liñ ngeen am sañ-sañu ànd ci wala bañ ci ànd est-ce que ñun mën nañu toog nangu que benn boo xam ne suñ ko tànnee Thiès du fi teew en douze ans en 12 ans waxuma sax conseil départemental mais en 12 yow maire juróom juróomi yoon teg sa tànk te juróomeeli yoon bi mooy bi ñuy def passation kon yow loolu intéressé wu la ñu wëlbati ko jox la conseil départemental nga tey la waat ko intérimaire pendant 5 ans ci maire yi ak lu ko jiitu intérimaire pendant 5 ans conseil nga bëgg wëlbati ko wëlbati waat ne Thiès man maay décidé kii nga xam ne moo fi teew moo ànd ak nit ñi di liggéey bëgg ne au lieu Ceesuwaay yi décider dàqal ko seen bopp non non du bokk ci élection kan mooy nangu loolu kan mooy nangu loolu xoolal Seydou Mor Ndiaye bii nekkoon chef de village bi ba Kër Laye lànk na loolu taalibe Cheikh Amadou Bamba bi lànk na soppee sëñ Mounirou Ndiéguène bi lànk na loolu xaritu monseigneur André Gueye ak ñi mu àndal lànk na loolu man maa la ko tey jii boo demee Yoof boo demee Yoof nga dem ci waa kër Imaamu Laay jiite samay mbokk tey boo demee Ndakaaru boobu maanaam waa kër Jaljo bi dafa ne samay mbokk tey jii boo demee Jolof waa kër Almouri Ndiaye samay mbokk doon jaxasoo ma man mënumaa jóge ci ñoom di nangu ku jël tànkam teg ko sama bopp naa la bàkke li am mooy yàlla moom moom doomu aadama yi yàlla mooy décider ci wàllu yooyu ñun ñëpp ñu soumettre ci moom waaye daf ñoo may ñuy sabablu di am bëgg-bëgg di am sañ-sañ ak di ñaan di rafetal di jaamu soxlay doomu aadama yi kon suñu jëlee bàyyi suñu lépp gannaawal suñu lépp bopp jéemu ñoo am suñu lenni bopp ba nga xam ne OFNAC OFNAC en 2014 man maa ko njëkk a def demal fa saa ñëw ne damay def déclaration de patrimoine ñu ne ma le dispositif technique bii recueillir la déclaration de patrimoine pareegul waaye pour rafetlu li nga ñëw spontanément suñu nee ba mu pare ñun ñooy déplacé wu ñëw Thiès jël sa déclaration def conférence de presse rafetlu li nga doxale ma ne leen jarul ngeen di ñëw parce que je n'ai aucun patrimoine à déclarer patrimoine zéro. Sénégal doit prendre man leen patrimoine zéro bi may dugg ci mairie patrimoine zéro bu mandat bi di jeex patrimoine zéro jël leen tous les enquêteurs du ñu wër fu ñu leen neex doo gis fenn lu taal ci le moom parce que bëgguma lool maa ko bëggul man ku ko bëgg ne mën naa la ko bëgg ne ndax jaadu na nit ñi di bëgg am dara man ma choisir di leen wutlee li ngeen bëgg mais laissez-moi choisir librement ne bëgguma lenn ci loolu man xam nga lu ma bëgg Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul te xoolal daje ci benn télévision ñu laaj ko waa élection yi kañ la mu ne bu ma sañoon mu nekk suba ndax bu boobaa naa leen jumlawaat journaliste wëlbati bu ci ne ko su ma mu nekkoon démb ndax ñaar rek mën yàlla ne waat man la ma dox mu ne keneen la ma def leneen li nga xam ne du waa Thiès bu waa Sénégal du kenn moo ma ko mën a retiré mooy yore responsabilité ou pas at mu jot bu yàlla mayee dund fekki ak tal bu màggat day ñëw ma dox dem Touba doxuma dem Touba ngir seen jéem ko fay lim ñu defal ñun ñëpp ñu di ci bénéficié wu tey te war a goreel loolu foofu laa kon boobaa bu nekkee ci loolu dinaa jóg jëm ci lii ànd ko ak ñi nga xam ne ñun ñoo bokk Cees rafetal ko nag yaatal ko moo waral boobaak léegi ñu créé ay waxtaan à l'est au nord euh, à l'ouest au niveau de nit ñi waxtaan ma ni leen d'accord jaadu na ñu bëri bëgg mais bu ñëpp bëggee boo jëlee benn ville kenn rek a koy soo jëlee benn commune bu fukk bëggee kenn na koy doon kon ñi ko bëgg te nekk suñu nañu dajaloo ñu waxtaan ñu tànn kenn proposer une équipe mais proposer une méthode boo xam ne ku mën ci doo wàcc yoon ñu boole ci audience bi ngir nga xam ne faratuñu nit mu nguuru mais dañ fal nit ngir mu doon surga dañuy fal nit ngir mu doon bindaanu askan bi liggéeyal le xam nga tant que nit ñi ñu ngi jàpp ne boo faloo da ngay tiim ay avantages rek a ci mais ci kër doo gis kuy xëccoo nañ may fobeere gisoo kuy xëccoo may balee gisoo nit ñi kuy xëccoo may raxas duus yaa ngi dégg Majmout Diop yàlla yàlla yokk yërmande ci moom mi ma yar ba mu daan organiser dimanche du PAI yi dans les bi mu koy njëkk a def ñu set setal permanence bi ñu njëkkee ñëw dafa jël matériel dem raxas toilette ta xam ne moom président parti bu raxasee toile yi beneen yoon kenn du la war a raxas toile mais nous devons changer de mentalité nous devons revoir suñu façon de faire nous devons prendre en compte les préoccupations essentielles du peuple sénégalais consacrées par l'article 3 de la Constitution du Sénégal la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou directement par voie référendaire. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de ses souhaits. C'est sur cette base que depuis le 24 juillet 2014, nous nous sommes engagés à être au service des populations de Thiès. Nous avons essayé de faire de notre mieux pour cette ville, pour avoir une ville propre, une ville sécurisée Nous n'avons pas tout réussi. Nous avons manqué énormément de moyens pour prendre en charge nos ambitions pour cette Nous avons travaillé à l'élaboration d'un plan de développement de la ville de Thiès qui a été euh, retenu, publié, adopté le 5 mai 2018 en présence du Premier ministre du Sénégal. Depuis, grâce à l'appui de l'État du Sénégal, nous avons réussi a construit ici à Thiès la maison des enfants le centre de gériatrie avec l'appui de la fondation Sonatel nous avons pu réhabiliter le foyer de la femme nous avons pu grâce au Promovilles bénéficier de 11 kilomètres 5 de route en attendant le complément pour arriver à 16 kilomètres 5. Grâce à l'appui du Fonds d'entretien routier autonome, nous avons pu réhabiliter des routes ici à Thiès. Nous avons pu mettre en branle une équipe de jeunes engagés pour le désensablement de nos routes, pour la propriété de nos rues. Grâce à l'appui de l'État, nous avons pu engranger ici à Thiès énormément d'éléments positifs pour le bilan de la ville de Je n'ai pas manqué de remercier la première adjointe Maïmouna Dieng, j'ai remercié l'ensemble des membres du bureau de ville, l'ensemble des conseillers de la ville de Thiès pour l'appui constant que nous avons pu noter au de ces sept dernières années. Mais nous avions opté pour travailler avec l'État du Sénégal tel que le code général des, du, du, du, du, code général des collectivités territoriales le stipule, article 172. Le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. Pour être conséquent et cohérent avec cette disposition pertinente du code, nous avions choisi pour les intérêts de Thiès et de Thiessois de travailler avec l'État du Sénégal et de travailler avec le président Macky Sall. Nous avons été critiqués, insultés, vilipendés. Nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Nous avons choisi de nous concentrer sur le travail pour la ville de Thiès. le temps a donné raison, Par la suite, ceux qui nous critiquaient, ceux qui nous reprochaient d'avoir pris cette position pour les intérêts des Thiessois, ont rejoint Macky Sall. Nous l'avions fait pour les intérêts des Thiès, ils l'ont fait pour leurs propres intérêts. D'abord des intérêts euh, électoraux, puisqu'une analyse lucide, pointue des résultats des élections ici à Thiès depuis le référendum de 2016 montrent très clairement qu'ils étaient en chute. Que cette chute était une tendance lourde, irréversible. Ce qui apparaissait comme un moment de rupture dans cette chute, c'était l'élection présidentielle, mais l'élection présidentielle était euh, très singulière, très particulière, et le résultat n'était pas le résultat d'un homme Ce n'était pas le résultat de Réunion, puisqu'il s'agissait d'une alliance. Un candidat qui était soutenu par 21 candidats recalés. C'est parce que précisément, ils ont dû faire l'analyse justement de ces résultats qu'ils ont choisi d'aller se ranger pour espérer garder dans leur escarcelle la ville de Thiès et les trois communes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que Réumi n'est pas membre de Benno Réumi a infiltré le Benno pour ses propres intérêts le rôle du président de la République c'est de rassembler il est dans son rôle mais notre rôle à nous c'est à la fois de le président de protéger le pays de protéger le Benno en identifiant les faussaires en identifiant les infiltrés et en cherchant à trouver ce qui sont engagés sincèrement à la cause du Sénégal, à la cause du Benno, en les élitant autour d'une table pour échanger en toute dignité, en tout, en tout respect, pour aller dans le sens de construire ensemble une liste qui permettra de prendre en charge les préoccupations essentielles des questions. Euh, ils veulent récupérer le signe, le logo et les couleurs de Benno. qu'il les prenne. Qu'il les prenne. Nous ne ferons pas de dispute d'étiquette. Nous choisissons l'éthique de Benno. C'est le fait d'être ensemble sincèrement. Vous savez que les élections sont organisées sur la base d'un code électoral et deux listes concurrentes ne peuvent pas utiliser les mêmes attributs. Nous leur laissons ces attributs. et nous choisissons la coalition Wattes. xale yi nag dégg naa ñu ni voté réew mi génn réew mi leen ko gën a. alors li nga xam ne moo nekk suñu kanam euh, dafa laaj nag dal li ñu li nekk suñu kanam dafa laaj dal dafa laaj ay waxtaan. mais dafa laaj aussi xam ne luy jot jot na mais dafa laaj kenn ku ci nekk jox cër sama dafa laaj kenn ku ci nekk nangoo bàyyi dara ay nit bu ñu buggee ànd ay nit bu ñu buggee ànd surtout ñu bokk benn cause bu kenn jiitalee ne man par force may doon nangam rek ànd dootu la par force may doon nangam moom du sotti comme nit ñi dañuy waxtaan dañuy waxtaan suñu déggoowee te xam ne li ñu gënal ñu ñëpp mooy intérêt ba ñu mën a présenter Thiessois loo xam ne nit ñi daal ci gis seen bopp bu ëllëgee bu ëllëgee ba ñu àgg ca fa ñu jëm danañu xam ne xam nga damay damay wax gars yi ne leen bëgg a bëgg a wat wala taxee ma am njaaram si ñett. am lay taay ma ne bëgg a wat. war naa góor a wat su la taxee ma am njaaram si ñett. ah loolu liggéeyee di ko jëlee. xam nga max ñaandu moom la tubaab di wax monter à cru waaw nga war fas wala mbaam wala gileem wala leneen te doo te du am teg xam ngeen si ñeent. bëgg a war su la taxee max si ñeent loolu liggéey di ko jëndee teg beneen bi ci des nag. ak lu ngeen mën di dégg da am daal ndax yàlla dafa tudd car bu dee du car bu jub ki toog ci car bu dee ba noonu yow nga toog ci car bu jub bu ci car naa nga da ngay boo ko dégloo ko moo yàlla te maa ngi lay waatal ci car bu jub